waaw mbay ah, mbay bul dem na génn gars yi dugg mbay aca ñëwal kaay na ñëw kaay génn na ñëw gars yëpp gis ko waaw ah, moom il faut mu wax moom tey arrière waaw arrière rek mais ba ni ñu lay nuyu mais mais boîte bi boîte bi dégg naa yaa ko moom si kër gi la si kër gi la. ah non non yow la ko yow la ko ñëpp la. Ah. pour ñëpp la ñëw xam nga. enjoy mhm. mhm. seen am nañ fenn foo xam ne mën nañ ñëw def seen. def seen prestation def seen affaire quoi. Mhm. te loolu ah. pour ñëpp la quoi. Ah, dégg naa idée bi pour yow yow yaa ko wax mais yaay nañ def nañ def lii xam nga. nga xam nga conseiller bi. loolu ñoo ngi fii pour loolu quoi conseiller ko. pour xam nga muy ubbi business di dawal parce que musique kese mënoo si nekk quoi. loolu loolu mais mais di nga ñëw concentré au Sénégal euh, pour génne ay album wala. non incha allah léegi mu ñëw ñoo ngi liggéey bu baax incha allah léegi mu ñëw. mais mais mais Philippe gis nañu gis nañu boîte bi dafa mel ni boîte américain quoi boîte bi nga xam ne dañ dañ leen di faral di découvrir foofu en Europe wala aux Amériques. non boîte bi moom boîte Sénégal la. Mm. boîte bi boîte Sénégal Sénégal moo ko moom jéemuñu def leen loo xam ne amu fi quoi. Mm-hmm. kon voilà. dañuy embrace suñu culture. xam fu ñu jógee quoi. mais mais Philippe mariage yu mariage yu Zeyna sa sa sa rakk nan nan nan nga ko dundee. alhamdulilah alhamdulilah yal na sëñ bi waay. après Philippe séparé wu ak ak ak xam. mais Philippe tontu ñu ci loolu. alhamdulilah. Philippe waxal ci loolu. lan la bu waat bi. waaw xaar bi déedéet tey moom nag man damay ñibbi. ndey sa xarit tey dafa ubbi bu waat. ah incha allah fi mu nekk nii moom almadi moom. almadi moom pare ngeen fa moom. almadi maas. lan la wax almadi moom pare ngeen fa moom. ah xaritam dëgg dëgg dëgg ku wax Viviane ne. déedéet ndey gëy ngi nii nañu wax nag tey. day cof fii wala tey. fii la lépp di xewee almadi dañ koy toxal mu ñëw. ah almadi moom dañ koy toxal mu ñëw fi Ablia almadi dañ koy toxal mu ñëw challenge loolu mënul ne ah dañ koy toxal mu ñëw fii de parce que parce que euh, euh, jeeg bi fii la ñëw de ah. eh, waaw ubbi nga gis nga restaurant bi yéeg ci kaw boo yéegee ci kaw daw <laughs> kii war naa mariage yu toll nii wax waxu mariage mu ne wàcc ubbi boîte bu mel nii ak restaurant bu mel nii te ba pare nag ubbil ko jeune artiste yëpp pour ñu ku bëgg liggéey nga ñëw liggéey ñëpp la ko ubbil tëjul benn porte pour benn waykat ubbil na ko xale yëpp. Abu Jubalo lañu bëgg mu ko wala wala. mbay man de tout yow man li ma lay njëkk a ñaan mooy sa yaram bi dafa tàng va à l'hôpital tu vas te soigner un peu après non non non mais il faut que tu tamit li mu la wax ni solution la Abou Cibolo wala. Abou Cibolo kooku maa xam nga ne woykat la. waaw parce que sëñ Tuubaa maa xam nga ne Viviane da koy woo mu ñëw parce que Viviane dafa bëgg Abou Cibolo. waaw Abou Cibolo keroog mariage yu Dieyna bi kan.